aousbillah min sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wa sallallahu ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima baxda qaala allahu taala fi lqurani alkarim wa bashiri sabirin allazina isa asabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa qaala aydan fi lquraan alazim walaw kuntu fasan xalisal xalbi lan faddu min xawlik wa qaala aydan wa innaka la ala xuluqin azim ñu ngi nuyu mbokk julli yi ñu seetaan mbokki taaliba yépp ginnaaw bu ñu sante yàlla na mu gën a ware julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu gën a selle di leen indil fas yéen indil ay seera tey ci xew-xew jamono bi xew ci lenn ci njabootu sëñ Touba di Seex Masàmba di ko sëñ Moodu Faati Xari muy suñ kilifa gu baax gii fi jógee nekkoon xalifa sëñ Moodu Faati Xari sëñ Cheikh Mbàkke ñu ñuy jooy ba tey mu nekkoon ku baax ku mooy jikko ku lewet ku tabe ku mën a jéllale ku mën a jéggale ku mën a rafetal waaw nekkoon koo xam ne dara ñoru ko lu jëf ci nit ñi waaw ci nit ñi rek la daa def lu mu yor balaa am jàmm da ko jox nit ñi bàyyi boppam ak njabootam boo ko daa wax danaa la fii dara waaw lañ may xam waaw te na ko na bi boobu fi dara dara la koo xamante ni daa nekk kilifa ci ñun ndax ñun bi ñuy ñëw jamono fekk ñu suñu waajur moo boobu moom lañu fekk nga xam li ci war lépp ci li ñu defal doomu aadama kuy gën àdduna moom moo ñu ko defal wax dëgg yàlla li war ci ñun lépp moo ko def kon nag kon am ab cër ci moom muy cëru baayab cëru kilifa ak cëru sëriñ yépp wax dëgg yàlla moo ko nekkoon ci ñun te doxe ko ci ñun nag wax dëgg yàlla ba dañ daa nekk fii ci Daaru Karim lépp nga xam ne dañ ci daa dañ ci daa jox ndigal fii ci dëkk bi te dal ñu fi nii mu wan ñu fi toujours niñ fi ma niñ fi nekkee ak li tax ñu mën fee nekk lépp dañ daa teg ci yoon ñu ci daa jaar te loolu rëcc wuñ ci dara wax dëgg yàlla ndax buñ fi mënee nekk nii ànd ak dal ne ci ndigalam ak ndigal sëñ tuwaay maanaam moom moo ca jàpp ànd ci jox ñu ci aw yoon ñu nekk ci nii mu nekkoon nit koo xam ne donte sama mag la nga xam ne mag ma lool nag ba xaw ma magi at yu bari macha allah teewul mu joxoon ma ci rub rakk bi xam ne ñoo bokk waajur waaw ci doxaliinam ak yëpp doo ko daa sóoraal ci loolu loola nag fàttewuñ ci dara waaw ba ci dëkk bi ñu nekk Daaru Karim nii mu daa daan ci waxtaan ak ñoom lu bare bari wax dëgg yàlla ci ni ko suñ ma sàmm fonke woon ak ni ko suñ Modou Fadi xëy bëgg woon ak yéene jëf si Modou Fassar amoon ci dëkk bi loolu lépp mu façon yéene def ko def ca lu baree bare te daanaka def na ko ndax dëkk bi lii fi nekk lépp moo ko def ànd ceeg yéene ànd ceeg njaboot gi ci ndigal ay kilifaam waaw ndax moo ko lotise joxe ko dagg pénc mi sedd njaboot gi ñëpp def fi jumaa ji li fi nekk lépp daal loo gis dëkk muy taxaw wax dëgg sëñ Cheikh moo ko fi taxawal ànd kook mbokkam loolee nag jëf la joo xamante ne yàlla la koy defal ak sëñ Touba ak Cheikh Moussa Mbacke sëñ Modou Fati Xari yàlla na ko jëf ju ci nekk fam fam nekk yàlla na fekk ñaan yàlla suñu borom mu fayal ñu ko gërëmal ñu ko te taxam ci barkeem loolee nag liñ ci rafete njort mooy ginnaaw bi mu fi jóge boobu ba tey liñ gis ci say ni suñu bët dal na suñu xel lool macha allah yàlla bu ci cat dugg waaw ginnaaw loolu nag ñi ngi ñaar sëñ fàllu Mbacke mi xam ne moo ko wutu wut nekk xalifa sëñ Modou Faty Khary tey di ñaan yàlla suñu borom yàlla na woyefal yan bi te dana ko woyefal ndax sëñ fàllu ku toppoon sëñ Cheikh la musta juyee ak moom ci dara da nga xam ne rek waaw ba daa wax naan bañ daa wax naan sëñ Fallou Mbacke Baye Fallou sëñ Cheikh waaw loolu nag njaboot dañu ànd ak moom noonu rek nekk ab Baye Fallou nag jàppale ko ci liggéey bi ba yan woyef ci kawam. di ñaan njabootuk sëñ euh, cheikh gi fi nekkit ma géer gi fi bàyyi dañuy yàlla suñu boroom mu teg loxo ci ñoom sàmm leen te ñoom yéen ñaar it yàlla dëpp leen kàttan ba li seen baay sosoon ñu mën cee sof ndax seen baay sos na lépp wax dëgg yàlla dañuy sof rek ñoom yàlla na ci yàlla dimbali ba ñu yegg lépp jàmm ak salaam ba sos seen yëfi bopp waaw loolu moom mm, bari te da ci am loo xam lay mbirum baatin moo xam ne du neex a wax ci public nii waaye bari na ndax ñëw ak ñëwam fii rek junj na ko ba tàyyi junj na ko ci bu ma tane nii bu mu daaru karim duut ma daa wax man saa ko tax ci daaru karim nii toujours danaan ma ah daaru karim dafa lépp mujj waaw loolu wax na ko ba tàyyi yoo xamante ni danga dem ba teg ci bët ndekete woo lii loon junj ak mbir biir yoo xamante ne du neex a wax ci public nii daal wax dëgg yàlla loolu def na ko yoon yoon fi wax dëgg yàlla ñu teg suñu day baytin xam nga baytin nag moom bu bu bu génnee rek maanaam nekkatut. sëñ Cheikh moom mi ngi fi toog 1978 sëñ Modou Faty Khary mi ngi nelaw 3 février 1978 moom 78 la fi toog xalifa ba 2021 mu nekk 43 ans li ci yéeme waatin mooy 43 ans yooyu mu fi nekkit ndigal ko sëñ Moodu joxoon da cee bokkoon muy leetu xadar leetu xadar bis boo xam ne sëñ Moodu da ko defoon bisam maanaam di wut lu bis ba bis bu toll ne leetu xadar muy bis bu mu fonk lool mu daa wax naan maa ngi ñaan képp ko aju ci man saa bu njëkk seetee ci bis bi muy leetu xadar fépp foo mooy nekk ci àdduna nag ma toggal ndogu andil ma ko lool la ci ñaanal moom moom ndogu na ci daa toggul joxaw ñam bernde moom la taamu woon moom la ci daa def wax dëgg yàlla luñ ci a def rek moom benn la ci jiitaloon moom wax dëgg yàlla loolee nag ba mu ko jox seen Cheikh ndigal def na ko fi 43 saaj def na ko ci xilaafa am def na doon na ko def Touba ca kër ga ba mu demee exploité Daaru Karim 2001 mu indi Laylatul Qadr fii ci Daaru Karim def ko fi 20 ans yoo xam def na ko fii ci dëkk bi bis booboon mu yokk ko lool ba ñëpp teg ci seen bët waaw te bis boobee li ci kéemtaan ci li ma doon laaj léegi mooy moom da caa nelaw ñu denc ko ci ñaanal ko ci nga xam ne 43 ans yi mu ko def. bi ko quarante quatrième moom ci lañ ko ñaanal moom nga xam ne daa wane ne kon lim noonu def nangu na daal loolu daal moom ci kiimtaan yi la bokk moom ñu xam ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne duñu mën a wax ni kon nekk na xel suñ mu fa suñ mu fa xëy 43 cent waaw loolu moom mooy moom mën nañ ko ci seere ci seere gu wér moom waaw man moom wax dëgg yàlla ndax suñ Maodo Fatick daa daa génn àdduna ma door a génn àdduna moo tax moom moom laa fekk daal waaw moom lépp daal moom moo ko defal loolu laa mën a wax nii waaw moom moo defal lépp wax dëgg yàlla te réccu wuñ ci dara waaw ndax doom la ma jàppe woon doom la ma jàppe woon donte dana ma jox cër bu cër bu ràkk sax waaw ci nawlonte gi ak laabi rek nooy jikkoom rek waaye nag wax dëgg yàlla moom maa ngi doom daanaka ñoo maasa rek waaw di ko doole sant di ñaan yàlla suñu borom mu yërëm ko jéggal ko taax ci barkeem jërëjëf aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi ndongo li Mouhamadou Faty Khary Dieng moo leen di nuyu di leen siyaar leen ndokkee lu bare bare sama bokki bopp yi toog di waa télévision bi maa ngi jiital nuyoo bi ci yéen ak sama siyaar ak di leen ndokkee lu bare bare ak di leen masawu coono yi di mbégte bu baax a baax a baax ci jataay yi ngeen jataay ak ñun ngir jëmmi ko te ku sell ku tedd ki nga xam ne moo fi bàyyi ko barki démb di sëriñ Cheikh Massamba Mbacke ibnu sëriñ Modou Faty Khary suñu jàmbaral islaam jooju nga xam ni euh, sunu borom moo na ko baaxe woon muy sànn woo xam ni yàlla moo ko sànni wante yàlla dogal ñun waa Sénégal ñu gañe ko ci biir Sénégal région de Diourbel waaw dëkk bu ñuy wax Touba Mbacke way juróom bu sell bi nga xam ne moo ko meññ di sëriñ Modou Faty Khary doonoon loo xam ñaan na jëm ju lu yàgg mu door a ñëw jamono mu daa wax ne damay ñaan jëm joo xam ne bu ñëwee jamono bu ma këppoo moom ay ndab ñu mën a këppoo ay ndab moom mbaa mu ëppale ma ba bis bi nga xam ne ci la sëriñ Cheikh mi di gën a jamono mi ngi ko fekk dëkk bu ñuy wax coon xuma moom suñu Modou Faty Khary waaye keroog bi ndaw la demee ba jub ko waxu ko dara dana alhamdulilahi rabbil alamin la doon ñaan suñu borom de suñu borom may na ma ko ndax dama doon ñaan yàlla taaw boo xam ne bu ñëwee bu ma këpp moom ay ndab mu toll ak ma ni ndab mbaa mu ëpple ma te loolu wane ci firnde yoo xam ni xam ni bu wér ne lam doon ñaan yàlla nangu na ko ndax jëmi sëriñ Cheikh képp koo xam toog nga ci kanam sëñ Modou Fatick xarit mu wax ne lépp lu nga xam ne am naa ko Cheikh Mbacke am na ko lu ma xam Cheikh Mbacke xam na ko te am na lu mu amut xam na loo xam ne xaw ma ko loolu ñun ñëpp seere nañ ko ci ay yoon yu baree bari yoo xam ne dañu toog ci kanam di ko wax. mu jëmm joo xam ni ndeyamay baayam baayamay nijaayam ndax ku ne xam na ne sëriñ Massamba moo jur sëriñ Modou Faty xari waaye sëriñ Hamsatou Lo moo jur soxna Njóoba Lo te sëriñ Massamba ak sëriñ Hamsatou Lo ñoo bokk benn way jur kon moom ndeyamay baayam baayamay nijaayam mooy leer goo xam ne su borom ko faqee ci jëmmam wàcc ko ci daaru duniyaa jaarale ko ci sëriñ Modou Faty Khary mi nga xam ni docteur bu lislaam la woon nga xam ne moo daa faj aajo jaam yi di saafara jàngoro yi di dimbali taalibe yépp mu donn ko nag ci 1978 la wut baayam bu dee xoolee 1978 ba at mi nga xam ne mooy 2021 loolu lépp mi ngi ci xilaafa gi wante bi baayam di dem lim ko bàyyal mooy ay njaboot yu sew yoo xam ni ñii daleeguñu jàng ñi amaguñu alxuraan ñu waxaale gu ñu samp kër mu saytul bàyyam liggéey boobu yëpp te sëñ Moodu jaboot ay jaboot yu yaatu yoo xam ñëpp ay ndaw lañu mu saytu leen seen wàllu njàng alxuraan saytu leen seen wàllu njàngu xam-xam leen seen wàllu samp ay kër ba ñoom ñëpp kenn ku nekk tubaarkalla tey jii kenn bëggul di morom ja képp koo xam ne sëñ Moodu Faat Xari moo la jur boo xoolee taaw bi ba ci caat mi kenn ku ci ne na la sëñ bi melal ak la mu la jox ak fam la toll ak fa nga toll sa bopp tax na bëggoo di kenn loolu lépp yàlla nañ ko jaare ci ndamul seex ma Massamba mi nga xam ni moo soonu ci ron gi gis gii tey kooku mooy Serigne Cheikh Mbacke di taw sëñ Modou Faty Khary di jëmm joo xam ni wax na ma ci làmmiñam ne man Cheikh di bu yàlla ne woon cëpp ne ma Cheikh ma ne ma ne ko Mbacke ma ne waxal loo bëgg ma defal ko yaaru kàddu képp laa koy wax moo di jëm jullit ñëpp nañu am jàmm man mii di wax yow nii. ci moom laa ci jëmm joo xam ni man na wax naa ma ne ma sëñ Maodo ma naka Mbàkke mu ne xanaa xamoon ne bu ma tëdd tëddoon ba guddi suuf sedd guy ma jóg jëm ci woon wii làmp sama poche bi daj ci juróomi dërëm sëñ maa duggaat ci biir néeg bi te génn ma joxe ko loolu nga dégg sëñ Ibrahima jo wax ko sëñ Sàmba daa mel ne bañ koy wax sëñ Cheikh Mbàkke mi moo taxoon faaxal afaadila ahli joodi wal karami ma sànma Mbàkke kasul xilmi wal xikami sëñ Ibrahima Jóob masar di setam bi nga xam ne moo doon maamam ñu fayee ko maamam faye ko baayam moo tax mu doon ko wax ñeent fukki at ak ak nangam am na ko ci xilaafa gi nee bu sëriñ si xam sa yendu un million de sava dugg na ci loxoom nee bu ma sa yendu rek million dugg na ci loxoom te waatal na la ci yàlla waatal ci yonent bi bi muy wàcc ab liggéey di wujj yàlla borom dem aljana bayut ci àddina oto boo xam ne moo ko moom ron garab gii ci ëtt bi fi la toog taalibe yépp ñu def ay communiqué ñu daje fi muy wax ñoom ngir bëgg taxaw dëkk bi ci biir wax ji mu wax taalibe yi maa ngi sukk ci kanamam mu wax ne mag de du banque ci xottu gerteem nga forcé ko ne ko faaw nga tàllal sa tànk dama leen ne man Cheikh àdduna si waat naa ci jëmmi Sëñ Tuubaa du ma fi tegale ñaari birig kenn gisul ci àddina birig bu mu tegale ak morom ja mas ta jënd fas mas ta jënd nag waxalut oto wërte ku yàlla jox ab ab jaam yàlla jox na ko waaye su ko mas jox def na ko ci bindee fi yàlla yi ngir sàkku ngërëmul yàlla ak ngërëmul yont bi ak ngërëmul Sëñ Tuubaa loolu moo waral keroog bi Cheikh Mouhamadou Mountakha fii ci barab bi di ko di ko di ko waajal si te fekk ko fu sori mu wax ne moom moo koy taxawul si boppam bi mu dikkee dafa wax ne wóor na ko moom Muntaxa ne Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy borom yoon nekkoon jamono moo koy taxawal si boppam kon moo tax ma dagg sama yit yëpp di ko taxawal sama bopp daal ngërëmul yàlla ngërëmul yonente bi ngërëmul sëñ bi jiitu na ko fi mu tëdd kooku mooy sëriñ Cheikh Massamba Mbacké ibnu sëriñ Modou Faty Khary yàlla na ko yàlla fayal li ci dolli ko mooy ñun te xamul kenn amuñu kenn gisuñu kenn ngir jëmmi sëriñ Seex fi mu nekk itam xëy na ñu ngi koy jooy suñu rangoñ feragut ndax kenn ku ne ci ñun jox na la ci boppam loo xam ni war na ci boppam loo xam ni ndax dafa wàllu yu bu la bëggee dimbali dalay xamal boppam kon doonul moom ku mën a xam waaye li nga xam nit dana ko xam ci nit liñ ci xam ñun te man koo wax mas naa ko wax ne ko bu fekkoonte ne li ma sa li ma xam ci yow sañ naa ko wax mbaa dinaa ko wax su ma ko waxee loxo dara dara gimiñ waaye nitu yàlla nangul koo xam rawatina ko mel ni Serigne Cheikh ndax addunam yëpp dundam yëpp làq mbiram rek la fa nekk woon loo gis mu génn ci biti rek dama mën tamay génn mel ndablu fees la cay tuuroo nit ñi di ko gis waaye la ko tax moom lépp àllaaxira la loolu moo tax dundam yëpp mu jël ko ci liggéeyal boroomam ci jaam ñi di faj aaju jaam ñi di saafara jàngoro yi di xeet li bindeef yi di bendeel doomu aadama yi lépp lu ma sa am ci àddina toggee na ko añam jox ko doomu aadama yi mas ngaa gis kilifa koo xam ni sëriñ Cheikh bi muy dépasse cent et quelques mille jamono yi boo xoolee jëmm ji fi mu toll ci mu yoroon ak ñi maasal ci ahlu Mbàkke nga xam ni génération bi mu bokkoon ñu ngi ko bokkal ñépp kenn ku ci boo xoolee booba fa toll ak fa mu toll boppam ak fi nga xam ne fi la yàlla tollal mbirum sëriñ Cheikh da nga xam ne sëriñ daa bokk ñu mujj ñi waaye yére yi mag ñi ko jox jamono yooyu bañ bi sottee oto yi dem di jëli ko war a xewlu si fu wël réew nekk bu baax oto yi dem jëli la indi bu xewloo li nga war a naan ngay naan li nga war a lekk ngay lekk booy dem mu làmb li ci ne lépp mu leen ko oto bi kenn ku ne fa nga jógee moo la fay dalawaat añ bi noonu reer bi noonu di dundam yépp loolu mooy liggéeyam ñaan yi mu def fu ne ci àddina doomu aadama fi bàyyi ko dëkk bu mag bu ne ci senegal ak dëkk yu ndaw réew mi yépp ba bitim réew fu ne ci àddina fàq jëm ci seen seex nga xam ne eggoon na ci ay jamono dañuy bindu ngir lu jëm ci moom ci bis bu ne mënu koo recevoir ci ay ay ay ay ay ay waxtu dundam yépp Touba Daaru Karim daana xetti bindeef yi ci àll bi àll bi mu ngi wàcce liggéey kees ndax xëy na taamoon nañ mu xaw a daan njaboot gi bañ ko defee ci biir kër gi loolu rek lañ ci taamu waaye bi muy demit ñi nga xam ni taamu bi nga xam ne moo joxoon ndigal ñi indi ko kees moom boobu xam ne bu wér ne sëñ bi fa na ba noppi waaye ku xam ne ku xam sëñ Cheikh xam diggante ak bindee fi xam ne bu ko defoon ci biir kër gi tam dana xaw a rax tuuti dana xaw a xajam tuuti moo tax mu laaj ko mu defee ko kees ñu indi ko Touba rob ko Daaru Karim gi nga xam ne bi sëñ Massamba bi sëñ Touba joxe ndigal ñu sanc ko ñetti sanc la joxe ndoowoon dafa woo sëñ Mourou Moussa woo sëñ Fallou woo Cheikh Massamba ñoom ñett képp la woo sëñ Fallou sëñ Mourou mu ne ko na nga sanc Tindodi sëñ Fallou mu ne ko na nga sanc Ndindi sëñ Massamba mu sanc la ko Daaru Karim gi kon da ngeen di daanu Touba tuuti di fa liggéey di indi Touba te julli ci jumaa ji ñett sañ ci li sëñ bi joxandoo sëriñ Massamba ku ne xam na ne ci taarix dañu wax ne lépp lu sëñ Touba mas a bind sëñ Massamba moo ko maas te ko liggéeyal ci alxuraan ak xaside yi ak di nett di taalib yi ay tombam ak gën a dégg nit ñi waxi sëñ bi ba sëñ bi junj rek sëñ Massamba moo koy wisaar wisaar ci doomaar yi ba mën koo dégg mën koo mën koo jariñoo am na ci biir téere yi yoo xam ni sëriñ ma sëñ Touba waxoon ma Massamba ne ko téere yi doonul ñu war a génn ndax téere yi bari na coo xam ne bu ñu génnee bu ko tali bi jàngi dootuñu jaamu yàlla ndax sëriñ bi may gi daa yaatu te wallaahi na sim la suñu borom dencal sëriñ Tuubaa bu ko tali moo bu nekk buy dox ci àddina la ko soob lay ku ne ne mur bu yaakaar sëriñ Tuubaa gëm sëriñ Tuubaa la woo ne Mbàkke nga dëkk biir Tuubaa gi boo faatoo yomal xiyam àjjana boo boo juddoo Tuubaa màggee Tuubaa yaroo Tuubaa sopp sëriñ Tuubaa boo loolu moo war la mu ne ko xasida yi am na ci yoo xam ni wër sa génn gaal yooyu yëpp mu ne ko dañ koy denc yëpp sëñ Masamba fii la ko denc fii ñu denc sëriñ Cheikh tey jii gaal yëpp a nga foofu néeg bi nga xam moo doon néegu xam ne da koo joxoon sëñ bi sëñ xam ni dañ daa gas ci biir di di suli ci xeer yi di ko barkeloo fa moom lañ faye maa woon yàlla nañ ko yàlla fayal jëmm la joo xam ni man mii di wax yow nii fi mu jaare man ci wax bu ma la koy nettali Euh, bootul sax yàlla na mën a àgg ndax mën naa ne 1978 euh, la la suñ Modou Fassal naraw te deewoon sa 79 la sama bàyyi naraw 79 boobu bii ko yàlla téye at mu nekk mu nekk sama gan man fu ñu nekk ci àddina ñu ngi ànd ak moom ci saayir ànd ak moom ci baatin mu ngi gunge ci biir duñu gunge ci biti lu nekk suñu kanam itam si xalaat lu mu mën a doon ci àddina wax nañu ko bañ ci daan àgg jamono bu nu yàlla indil ci àddina jamono ba ba ko suñu borom dara indi suñuy bët suñu Cheikh wax nanu jamono ba ak na muy mel ak bak Cheikh fan ci war a teg suñu tànk ba ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey fii neen ci fan yi suñu Cheikh na ci ak man feebar naa feebaru metti yàggut ma dikkati ko wax dako man ne mbàkki sama yaram yaakaar naa boo ci waxut yaakaar naa ne àgg na foo xam ne goo man a dëpp dana ko yomb mu ne maa ngi yow de am na liggéey bu ñu war a liggéey bu si kanam te te la léegi ba maa ngi ko jàppee liggéey nga xam ni moom laa wuutu ci taam bu sell bi taam bu sell bi wuutu ci bàyyam ci sama jëmm ji ci xeebu ci xeebu ji ci fan yi toll nekk naa ca guyaar wallahi hasim barki si amarul xadim sëriñ bi ci boppam jox ma ndigal ne ma da nga ñibbi si Tuubaa yëkkati benn foto jox ma ak euh, benn secret ci alquran dama foto bi na ko téye alquran ji ñaari saar la benn bi mu ne guddi gu nekk bala nga tëdd dina ko jàng benn mu ne suba gu nekk bala nga dikk dina ko jàng daal may xamal ne ma bis nekk tey may naa la kër Tuubaa na nga taxaw ci defar ko ndax bis bii may ñëw gu yaar di fekk si naa bëgg bis mu ko war a defee Tuubaa di ko wax loolu weer woo ma koy waxee du dellusiwaat diwoon mukk gi njaaxay daaru këram gi la ma dal keroog ma joxe pàkk bi ma jox ndax man a defar ko ndax bëgg naa ko léemu si gaaw bi ñu jëm bi ñu dëgmal dinaa ko léemu si te moo sam ki sopp sopp fa laa koy fekk nga xam naa takk ay rajo yéene ko lañ jaxaay yépp dañ jaane asalem lansar euh, firdawsi ba alie ñëpp dama leen woo ñu dikk dikk ci pàkk bi keroog sëñ Cheikh ba mag Cheikh njëkk a wax ak taalibe nga xam ne moo doon jot li wax ji ñu ko wax bàyyi bàyyi Abdou xam sëriñ Cheikh xam nga bàyyi Abdou Dieng képp ko xam sëriñ Modou Fassari xam nga bàyyi Abdou Dieng moo doon jot li wax ja sëriñ bi da ne li ma fii ni mooy wax leen kan mooy sëñ Modou mi ak kan la àndal daal wax ne jëmmam de maa ko bàyyi woon Guyaar ko bàyyi woon sama ndigal moo ko indi fii tey tey jii su ma neexee mu fanaani Jolof waaye li leen mooy kan maa fi indi ngir mu ngir mu wéttali leen dana leen dimbali te du leen dimbali ko bari na it lu ngeen fiy jàmbat te moom mi moo leen koy jox dana fi bari ñu xëcc am ndox di ko naan te moo leen koy jox dana fi bari ñu xëcc ay làmp di ko taal te moom mi moo leen koy jox te barki sëriñ Modou Faty Khary bi muy wax loolu njëkk paquetu sondal yoruma ko boo xam ni mën naa ko jënde paquet sondal një njëgu bërigoom ndox yoruma ko boo xam ne man naa ko jënde bërigoom ndox tey jii may wax yow nii junniy mètre ak juróom-benn téeméeri mètre yu teg ñeent fukki mètre xëcc naa ko am ndox yoo xam ne addiyee Sëñ Tuubaa laa ko jox laa ko def képp ku ci naan ab robinet maa ko dugal fa mu ne nga gis naan courant baa nga jógee ci asalem jaan jaan ba ci sama jàkka ji dem ba ca ba ca catu dëkk ba maa ko fa indi kon ba muy wax naan maanaam dana fi bari ñu wax ci ndox di ko naan te moo leen ko jox dafa bari ñu xëcc ay làmp di ko taal te moo leen ko jox te ba mu koy boobu yoruma njëgu njëgu paquetu sandal kooku xam ne kii mu samp mooy kan quartier bi gërëm moo ko joxee sëriñ Abdoulaye Mbacke ibnu sëñ Modou Faty rekkam la ñoo bokk benn baay daf ko ne sëriñ Cheikh sëñ Modou mii de xam naa jàmbaar nga lool waaye li ñu ko jox yërëm naa ko ci ndax njaxay njaxay tàng na tàng koo xam ne jaxasoo jaxasoo koo xam ne na ko yore weer ci dara tuuru fa di loolu dana ma jaaxal sëriñ Cheikh ne ko Abdoulaye mu ko Mbacke mu ne ko xanaa xam ne buur du dénk arme ko mënta yor kii ma ko jox dana ko yor ba àggale ko fi bantu bantu dam loolu lépp yàlla def na ma ko defal na ma ko sutura Serigne Cheikh ak mag waaye ak tolluwaayam man mii di wax yow nii sama jëmm képp man na si jàngee mooy Serigne Cheikh dajale naa fi xaalis dikki sëriñ bi ne ko dama bëgg di dajale ak jur di ko jaay bu ko defalee ba mu suur ma jaay ko bu ko jaay daa ci am dara te ko defee du ma génn dëkk bi ginnaaw bëgguma génn dëkk la ci moo ci amee ndigal daa jënd ay xar yu rafet di ko yar bu màggee ma jaay ko su ma ko jaayee daa ci am dara te tax ma génn dëkk bi sëriñ na moo du mën a ko mbàkke ma ne loolu def toroxlu te yow doo ma wutloo ma passeport daggal ma béyee wutal ma arsa de poos lépp noppi ma dikk ci sëriñ Cheikh jébbal ko lépp mu ne fii laa la ndax bu bëggee nga tukki mooy sa bu wér gi amee toog ci moom ndax ci àll ba dañ fay def yéenoo ma la dara daal ma wax si moo du mën a ko mbàkke ma ne ma sa bépp teraanga ci kër la lay fekk xoolal sama jëm ju xew ji ni ma ñàkkee solo gën a tuut ci nit ñi gën a manqué ci nit ñi gën a doyadi ci nit ñi te waat naa ci seexul xadim lu ma bëgg ci mën ma ko ñàkk mu fekk fa ma ne du ma génn saam du ma fenn du ma kenn salaamaaleykum boo ci ma ci benn marché jaay ma jënd ma benn métier ci àddina lu ma mënta ñàkk ma fekk fa ne te lépp sëñ Cheikh ko def sama jëmm ji kon sëñ ma Massamba yàlla na ko yàlla fayal lii may wax ci moom nag yàlla mën na def taw man la joxal defal tawfeex may jàkkaaru yéen di wax ak yéen waaye képp ku sukk jébbalu sëriñ Cheikh wala ngi wëlëri wax am seen Cheikh sëriñ Cheikh am la billaahi wallaahi wa taala lii mu def sama lu ko def na ko yow mbaalu mel ne loolu mbaalu ko raw fopp kon sëñ Cheikh la yàlla def muy jëmm joo xam ne yàlla mi ko bind képp moo ko xam ak yonent bi ak sëñ Tuubaa mi noonu liggéeyal yàlla nekk na fii sëñ Abdou nekk fi sëñ Abdou Khadir nekk fi sëñ Saliou nekk fi Cheikh Modou Mourtala nekk fi sëñ bu nekk fi doomi sëñ Tuubaa yëpp di juróomi doomi sëñ Tuubaa kenn ku ne fat sëñ Cheikh def ko na taaw jox ko cër boo xam cër ba nga jox doomi sëñ Tuubaa ya nga bokkal benn baay cër boobu nga jox sëñ Cheikh te mu bokk ci ñu mujj ñi kon dafa yor yaramu ndaw waaye ca mag ñi la bokk loolu ñun xam nañ ci loo xam ni sëñ ñu ko wax ci waaye waat naa ci yàlla waat ci yonent bi fa mag ñu jëkk nekkoon foofu la sëñ sax nekkoon fu loxo góor jot loo xam jot na fa lépp lu ko mas a soob ci àddina boo waxee ci lam yàlla na ko xaw ma lu ñu la ne sëñ Seex ko wax te lu ñu ko wax ci àddina ci aw làmmiñam giñ naa ci yàlla ak bu fekkee ne dégg nga dégg li ci làmmiñ sëñ Seex mbaa nga dégg ci koo xam ne sëñ Seex ko wax mu wax ko waat naa ci Ahmadu Bamba loolu moo ko alxuraan ji ñoom ci àddina dara mënta te yàlla def loolu ci àddina nawet buy ñëw lu mu la ci wax loola du dañ nit ku am jàngoro lu la sëñ si wax loola du dañ lépp loo nga xam ne wax na la ko ci lu wax jëm man metti metti metti metti ak loola wax jëm neex neex neex neex bu dee koy fàtte bindal denc yàlla ci dindi dara yàlla na ko xam nga boo dee seetlu 1978 yooyu ma lay wax booba la sëñ bàccu liggéey sëñ Modou ñu koy miraas ba mu wax sama bàyyi moom sëñ seex mi na ko bàyyi Ousmane dama ba nga wër kër gi xoola ma bagage fi nekkoon ba xam dara des na fa mu déet sama baay bi ñu ñëw vérifié ba dellu si mu ngi jooy daf ko na mbàkki bagage yi xanaa dara des mu ne ko li may dimbalee man si yaxle bu fi dara des lu dul taw bi ndax lu fi nekkoon de incha allah daañu def daañu def yaaram da wax ne yéen mag ñi nga xam yéen toppoon sëñ Modou damaa ba ngeen xam sañu sëñ Modou yett maa ko gën a def maa ko sut tànk fuuf maa ko porsé fuuf maa ko fi gën a yàgg mooy sëñ bi ko am fanweer ak ñaar mbaa fanweer ak ñett doon na borom juróom-benn fukki at juróom-ñaar fukki at yu manqué bis bi nga ko weer bi nga ko doon nga wax ci biir mbooloo mu toll noonu ne maa ko sutub tànk fuuf maa ko poorsek fuuf maa ko fi gën a yàgg ku ne xam ne sëñ Mourou juróom-benn fukki at ak ñeent dund waaye sëñ Cheikh li ñu koy bëgg-bëgg ak li ñuy xeer xeer ci moom dund fi juróom-ñaar fukki at ak ñett yu mat sëkk yoo xam ne léppam rafet na bi ko suñu borom tuyaa mu ne ci loo ëmb sa xol aajo boo am aajo xol joo am ci àddina boo jàkkaaru sëriñ bi maaru joom gi boo ci sa bët mu fa bëtam teg sa maaru yàlla fa saafara jàngoro jooje ak mu jëm laajatul bind soxlaatul bind soxlaatul wax lépp dugg ci nopp rek nopp rek yàlla dana yàlla def tawfeex te loolee loolee tolluwaayam ci diggante ak borom man wërsëg bi nga xam ne moo doon ñëw moom ci jamono yi muy dox di tukki fépp fu ne di ko def nga ne fu ne wërsëgoo bi mu duggee ci biirum rek wërsëgoo yàlla ko ful lépp di wala ngaan si kër gi dara jeexut waxtu wu ne ci àddina mi ngi faj ayu bindeef yi te xeeti li waa kër gi di xeeti li waa dëkk bi di xeeti li waa tund bi di xeeti waa réew mi te xeeti ba bitim réew fu ne ci dafa dem te loo xam jot na fu ne ci àddina ndax bàyyi moo xam ne fu loo xam góor jot fa kon jëmm la xam ne xëy na ci ñu mujj ñi la bokk waaye yére mag ñi lañ ko jox lu la mën a wax ci Cheikh ak lu waaye xër ci sëriñ Cheikh la nga ca xam ak fa ci toll ngay wax waaye yàlla mi ko bind képp ak yonte bi sëriñ bi ñoo xam sëriñ bi waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen baalu xaq bu baax di wax ne rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jataay bii li ko sabab mooy kàdduy seere ci jëmm ji nga xam ne dafa làqu jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala dañu dëkkoon ak moom nekk moom jaxasoo ak moom donte diir bi gàtt na yàlla suñu borom dogalit Euh, ñu ñii di wax ñoo man maay oustaz Mamor Ndaw nekk secretaire général ci daayira yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba ak li ko wër lépp yàlla dogal kon xam naa ci yu bare bare bare euh, taalibe laa ci sëriñ bi dund ak moom dund goo xam ne gàtt na fi man lool waaye góob ci moom it lu xaw a sakkan kon su may wax man maay kan aji wax ji benn taalibi laa ci taalibi Serigne ma Massamba mbakk yi muy sama bunt ci Serigne waaye mu dénkoon ma ay liggéey yu bare bari ci li nga xam ne mooy doxal euh, wàllu daay dawaayir yi. waaw diggante Serigne Cheikh ak taalibi yi lépp rafet moom dafa jàppi woon jëmmam ji ne ab taalibi Serigne Touba la jàppee taalibi yi ay nawle mboolem ku mas ne aslamtu ci moom. ak ki nga xam ne sukk nga feneen Serigne Cheikh daf laa jàppee ab nawle eh, day jël boppam wàcc ko te diis gan waaye day wàcc boppam ba tolloog nit ñi di borom njariñu neen te amul benn lor Serigne Cheikh su ma lay misaal mbiram la sëñ ba waxoon rek saa naaf in bila darar la saa soo jaxasoo ak moom ba ngeen tàqali ko da nga koy namm jàkkamti pour gisawaat ak moom te loolu dara waral ko mooy lewat gën nekkoon ci moom ak mbaa ak nawlunte gi nga xam ne moom la nawlunte woon ak doomu aadama yi ak di xool suñu borom ci boole mbindeef yi looloo taxoon ñëpp daal di koy bëgg ba soo seetee sax daanaka soo doon wër biir Touba daayira yi mu fi am soo duggee ci daayira soppe yi mu fa am mooy ëpp ñi nga xam ne ñoo aslamtu ci moom te dara warlu ko lu dul lii ma la wax rek wàcce boppam ngir mën a jëriñ doomu aadama bi ngir ñu man koo jege ngir mu man leen di jëriñ ndax léeg-léeg ni dana am ab cir ci suñu borom wala mu am cir ci àdduna waaye su yàlla dogalee ne amul jikku yoo xam ne dafay toroxlu ba wàcc tolloog nit ñi su boobaa duñ mën a jëriñ ci moom moom nag bi mu amee li nga xam ne dafa war a jëriñ nit ñi te suñ borom bi mu ko fi indi pour njëriñal nit ñi rek la dafa wàcce boppam ba nga xam ne fa tabaarakallaahu euh, ñëpp danañ mën a ñëw ci moom soo ñëwul sax moom dana def ay contact ba fexe ba ngeen am relation rien que mu mën laa jëriñ loolu aw doxinam la woon digganteem ak taalib yi waaye digganteem ak ñi nga xam ne sax ñoom la bokkal. ñi mu bokk ak sëriñ ma sàmm Mbacke bay na lam ci war a bay képp koo xam ne danga ngaa féete woon da nga koo féete woon ci wàllu kilifteem muy wàllu wayjur te bokk ak Serigne Modou Fati Xëri Serigne Cheikh jox na la wàccuwaay woo xam ne ñi nga say doom yi nga xam ne yaa leen jur joxuñ la wàccuwaay wu toll noonu kenn ci ñoom ku mas a seq ak Serigne Cheikh loo xam ne. sa xool tàng na ci amut te daf leen daa jëriñ saa suñ ko soxlaa mu bàyyi lépp loo xam ne jàppoon na ko dem wuy ji leen ba seeni yitte mat ci moom mu daal di delluwaat sëriñ Cheikh ak dundam amu ci woon benn yitte lu dul yitte yi njabootu sëriñ Touba gi ak njabootu sëriñ Massamba gi loolu ci la doon xëy ci la doon gont moo tax ma ne la aw doxi la aw doxinam dafa rafet digganteem ak digganteeg ñi ma bokkaloon ak sëriñ Massamba Mbacke kenn ku ne jox na la wàccuwaay woo xam ne fa tabaarakallaahu alhamdulilah rek eh, nga ci mën a teg ñi bokk ak sëriñ Modou Faty Xarit waaw boobu ay tuut tànk ko bàyyee waaye alhamdulilah boobu bi ko fi sëriñ Modou bàyyi xam na ne ki mu bàyyi ndono mat na ko sëkk ndax boobu waajal na ko ci saahir waaye waajal na ko ci baatin waaye saahir siñ ko waajal ak baatin bi moo ko may fit wu toll ne njaboot gi fi sëriñ Modou bàyyi kenn xiiful kenn marul kenn raflewul kenn ku nekk taxawu na la fa la war a taxaw su dee jàng alquranul karim dugal na la ci daara ba nga xam lay sa wërsëg ci jàng alquran ak xam-xam mu dellu si nga ñëw ci kër gi mu taxawu la ci say aajo ba nga mat takk soxna mat a denc mu takk la ñu bari ci ay rakk moo leen dencal soxna taxawu leen ba ñu dëgër loola bokkoon na ci li nga xam ne euh, ndénkaan la ko waajuram dénkoon te daana wax ñun ñii daanañ wax na lépp loo xam ne da ngeen ko yor dama ko jox su ngeen dajee kenn ci sama rakk su ko soxlaa jox leen ko ko kenn ku ne ci ñoom xëyal na la gontal na la wala muy fajaru la bés boo xam ne jàpp nga di su Serigne Cheikh nekkutoon ci kaw suuf bés boobu dana métti ci yow ci sahir ak baatin kon moom rafetal na ba bés bi mu wujjee suñu borom amul lenn loo xam ne mas na koo séq ak njaboot gi ko bàyyi bàyyi nga xam ne dana tàng seen xol loolu amul te ñoom ñëpp man di ñu bari sukk naay seen kanam ñu sant ko ba am ñoo xam dañoo yëkkati kàddu yi ne sëriñ Cheikh a leen gën te loola gore la waaye kenn ku ne daal defal na loo xam ne ndax daf doon bàyyi xel ne njaboot gii ma sëriñ Modou bàyyi day fas naa yi ne duma dem mukk ci kanam sëriñ Modou dafa am gàcc kon loolu ndimbal loo xam ne suñ borom subhaanahu wa la moo ko bàyyi te sëriñ Modou bi muy dem sëriñ bi eh, ay atam bariwul ay atam bariwul waaye nag am na ndimbal bu baax a baax ba nii mu wuysee dëkk maamam bi kenn jéppiwu ko kon alhamdulilahi rabbil alamin rek lañ ci wax lépp moo ko fi def ndax bi mu koy yeesalaat jàkk jee nga gis ñu denc ko fa ay seng rek moo fa nekkoon te seng yi dafa demoon ba daanu suuf si sëkk ko ba daanaka tabaraka la ak pant bi wala ñaari néeg yi nga gis muy bâtiment bu màggat boobu ci kër Serigne Modou gi loolu rek moo fi nekkoon waaye bi nga xamee ne moom ci baatin lay dox ci baatin lay dox ki nga xam nag day dox ci baatin bokkul ak kii dox ci saahir ndax keroog bi ne laylatul xadar bi ko nattee ba pare ba ne laylatul xadar day daaru kërim laa koy defee ñun ñëpp am nañu jaaxle waaye ca pas-pas ba ci engagement bi mu xam ne jot gi mu jot ndigalam man de mas naa toog mu ne ba fii sëriñ Modou jógeek léegi defuma fi dara wala ma wax fi dara lu dul ci ndigalu suñ suñ suñu borom laa ko defee nga xam ne moom ku ñu doon conduire la moo tax bi mu ne damay dem ñu def nii moom xam na ne dem rek lay def mu ne su may dem ca taatu garab ga man kese defee ko fa danaa ko fa defee ci lañ jël ñun suñuy engagement ñun taalibe yi ñëw taxawu bis bi ba nu mu waree mu yaatal ko ne yaatal goo xam ne fa tabaarakallaahu jéggi na dayo te loolu li ciy misaal mooy jumaa ji nga xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët muy jumaa joo xam ne fit la ko defee ànd ak ay bokkam fa tabaarakallaahu ak taalibe yi ñu defar ko ba nga xam ne képp koo xam ne egsi nga daaru karim da xam ne daaru karim mi borom daaru karim defar na ko fa foo xool ay làmpa ngi fi ndox a ngi fi loolu lépp ci ijtihaadam la ak góorgóorloom ak farloom ak xam ne dëkk bi nga xam ne moom la sëriñ ma Masamba masa sanc ci ab dëkk te mu ndonoom ndonal ma sàmba neex na naqari na ci loxol Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Modou Fatick la nekkoon kon def na li mu war a def fa tabaarakallaahu yaatal ko indi fi ndox indi fi courant eh, ba gis nga dëkk bi nu mel kon loolu moom bokk na ci ay jëfam alhamdulilahi rabbil alamin rek lañ ci wax te di ko ñaanal fee mu tëdd suñ borom dolli ko fa ay xiiwal eh, dolli ko fa ay leer ca barsax Muhammadiya ci sama jëmm ji man mii de ku xeebu laa woon man mën naa joxe exemple ci sama jëmm ci man moom sëriñ tu suñu borom moo ma boole sëriñ Cheikh moo ñu boole ba keroog bi ñuy gise maag moom ci ñetti fanikoor lañ gise ma di ko xeeñ ba fekk bañ tegtal ma këram bi ma ñëwee keroog biñ gisee rek bi ne tër rek dama ne waajaa ngi ñaari nit ñoo ko nuyu ñetti nit ma jox ko sama loxo mu ne ma noo sant maa ne ko ndaw mu ne ma ndax woor nga maa ne ko waaw woor naa mu ne ma ab ndaw ku ndax dina woor maa ko waaw mu ne ma luy sa yitte maa ne ko damaa tawat bëggoon ku ma ñaanal mu téye sama loxo daal di ree ne ma tawatu du tawat du nekk ci sa yaram maa kon mbàkke lu mu mu ne ma dafa am lu jot ci yow daat bi egsi ñu wan la ko ba pare nga di ko yéexe ne nekk sama loxo téye ba ak mu ne ma kan mooy sa wasila ma ne ko rasulullah ba muy ñett yoon mu ree ne ma wut ko dafa jot ci yow ma wàññeekuwaat dellu sama kër foo ma nekkoon mënatumaa nelaw man maa ngi dëkkee maa ngi dëkkee HLM waaye maa ngi jógee liggéer loola benn mbir la ci sama diggante ak moom gis naa def naa it loo xam ne ca xel kom liggéey bi tar na lool saa suñ wàccee ñu ne du jeex maanaam man tey danaa natt sama sëriñ jël kayit bind lettre boo xam ne nuyu ko ci ne ko man oustaz Mamor Ndaw maa lay laaj léegi xel ko bi kañ lay jeex daal gas ca àll ba suul kayit wi si ci daara ji guddi jot ma def samay naafila tëdd sëriñ bi ñëw tiim ma ne ma li may laaj liggéey bi alxames alju aljuma lay jeex ci di ci midi ci lay jeex waaye euh, deux heures zéro ci lañuy ñuy ñu yeewu ñi ma bokk oto maa leen liggéey bi day jeex tey ñu ne ma du jeex maa leen su leen neexee ngeen yéy na ko ne oustaz Ndaw nee na liggéey bi midi lay jeex deux heures zéro minute la ñuy yeewi ko doon wax mu di ko jottali mbooloo mi njoogu jeng lañ ko wax rakki sëriñ Modou Fatick jeng njaxaay maana ko waxal mu yuuxu ne oustaz Ndaw nee na midi la liggéey bi jeex deux heures la ñuy yewe midi bi muy jot la Alaaji Mbàkke moom sëñ Abdul Baax yi waar otoom di war ne leen ñëpp dellu ca daal ba bi ñëwee mbànn yiñ taaloon dañoo teg yenn ya si tuuti ñu yéeg ci camion yi yàlla dogal sëñ Saalihu sàmb keroog moo ju yewi bi mu ñëwee ñu tegal ko pliant bi ñu toog nekk ci kaw oto bi bi mu waxee ba pare ne tàllal leen fu waaye tàllal toll na tàllal loxoom ñu tàllal maa ngi tekk benn montre Casio bi sëriñ bi ñaanee ba pare bañ tafli bi ma tourné damaa fekk muy deux heures sur minute man mi te boobee bokk na ci ay kéemtaanam ñu toog di ko waxtaane benn waaye ñëw ne lu ngeen di ñu ne ko sëriñ Cheikh mu ne xanaa lim def tey moo gën a garaaw ñu ne ko lu def mu ne xel koom benn xaale boo xam ne dafa faatu kooku soxna euh, ku ñuy wax euh, maire Jabaay ma ngi dëkk forage Baylaat sëñ Saliou Diaw muy way juróom daf faatu ba yóbbu croix rouge ba teg ko ci ci barankaar bi bàyyam xëy di wut oto bu ko indi Touba mu mu jafe yàlla dogal bi sëriñ bi wàccee sëñ bi ay trois heures la daa jóge xel xelkom ci liggéey ba ñëw sëñ bi bàyyi xale bi ñëw na ko man de damaa bëggoon nga topp tool ma oto ngir ma mën a dem denc sama doom ji gaañu su ma ko dencee pare dellu siwaat ci liggéey bi loo ma jox ndigal mu ne ko anam mu ne ko mag ci waa croix ñu teg ko ci balankaar bi indi ko booba rakkam yi mbàkki mbàkki yi ñu ci biir néeg sëriñ seex toog ndax ñoo daa ñoo moom ñoo daa bokkaañ biñ koy dugal bopp bi lañuy dugal sëriñ bi jàngale mi muy jàng teg ko ci bopp bi ne ko jógal liggéey xale bi jóg taxaw mu jël benn kaas ñaan jox ko xale bi jóg dem xale baa ngi dëkk fi foras waxambaane la yaayam maire jabaay la tudd meeru daayir la woon kon loolu bokk na ci li ma mën a seere ci moom ci wàllu baatin sëriñ bi wéetal na ma ndax Euh, dafa doon kenn ci man dénkoon ma ay responsable yu bari ci biir daaru këram gi waaw bokk na ci rek kër sëriñ kër mag moom gi daf ko yëkkati woon teg sama loxo ne ma dee ko seetal par jours yu nekk te loola ba ma koy wax baatin dugg na ci bokk na ci li ma wéetalee mboolem li aj ci moom ci ay daayira ci biir daf ko yëkkati woon teg ko ci sama loxo ma di leen xamal seen diine kon mel na ni maa doxoon digganteem ak ñi nga xam ne moo leen waroon a xamal seen diine ma di leen xamal seen diine bokk di ci li mu wéetal jumaa ji keroog bi mu noppee ci sama loxo lañ ko teg ma di ci def ay bayaan di ci waxtaan ak nit saa su ma ko ma saa soxla wala ma ko mu génn wala lancim damay tëdd may damay wax sama soxla ne ko tey sama sëriñ dama koo namm su ma ñaanee rek pour gisee moom ci guddi gi directement laa gisee ak moom ba waxtaan ak moom kon loolu bokk na ci li nga xam ne wéetal na ma bu baax a baax a baax ndax dafa maa marqué ndax man aw ma woon ku dul moom dafa amoon lu nekk ci sama loxo ma jël ko sànni ngoy ci moom muy sama ndey di sama baay di sama lépp kon su ma demee ba jisatuma ko dana métti ci man lool te dama daa wax ne sëriñ Cheikh man dafa ma farle ndax lépp lu ab taali bi ab sëriñ lu muy def ci ab taali bi sëriñ Cheikh def na ko ci man man nag maa ko tàmbaleegul dara Eh, ma arrière tuuti rek indil la ci sëriñ seex ak baaxam mas na génn génn bu yàgg ba ñu ñëpp ñu am ci ak jaaxle ñu daj ci kër gi ñu taalibe yi ne sëriñ bi de dem na àll kenn xamut ci moom dara te suñu toogee ñu ñi de dafay mel ni suñu jaayante des na ba keroog yëf yi métti na lool keroog maa yëkkat sama loxo ne sëriñ Cheikh dellu si fii su jaaree bakkan taayale naa sama bos ngir sëriñ Cheikh am jàmm keroog mbaar mi dafa yëngul lool ci lañ def benn délégation jokkook sëfëram mu jokkook mu laaj ñaan ñooy ñëw ñu ne ko Oustaz Ndaw day ñëw Modou Mamoun Ndiaye day ñëw Modou Fati Dieng day ñëw Modou Anne day ñëw keroog Modou Anne dem na ba ne buñ ko boole ci lim bi ndax sëriñ Cheikh mënee su koo gis mbokk mi sax mënuñ koo gis bi ñu defee loolu moom mu wax ne nañu ñëw keroog oto Baye Baddo aan maa ngi Moodu aan moo jóbbu keroog bi ñu àgg euh, ci mbaaram sëñ Fallou mi la chauffeur bi ne fu ngeen toll ñu ne ko ña ngi fii muñ ne mën taxaw lañ daaw mu jël si ci oto sëriñ bi ña ngi fekk ci benn hôtel bu wéet diggante hôtel bi dama fàtte hôtel bi nu mu tudd waaye ci Dakar hôtel bi soo génnee ci chambre bi sëñ bi nekkoon géej gi rek moo dox diggante sëriñ bi ak euh, chambre bi mu nekkoon am na ay werante yu bari yu sew yu doon am ci suñ diggante maag ñi ma àndal suñ waxee rek ma teggi teg ne waaye biñ àggee sëriñ bi dafa firndil ci bi may jox loxo wan ma ne ma li nga doon weranteeg ñoom xam naa ko diir bu ci gàtt lañ fa am ne ñu dee mbàkk ba nga demee dafa yàgg te xamuñ ci loo ne amuñ benn information buñ mën a sukkandiku ñu daj woon nag ngir siyaar si la ci kàddug mbooloo mi mu ne ñu fii de jërë ngeen jëf waaye fii de ndeex indiw ma fi ay sondel di laa fekk mu teg ci wetam basan gi mu toog ëpput si jaadi bi ma toog te basan gi dafa xar laal bañ fa def amul mat la ay dénki la duma séere ci moom mukk lu ma bi ñu toogee mu ne sama ñëw bi day du dara lu dul suñ borom daf ma boole ci nit ñi nga xam ne jaamam yi nga xam ne su yëkkatee am nattu ñu am ca ba mu doy suñu borom daf ma boole ci jaamam yi nga xam ne su yëkkatee ab nattu danañ ca am ba mu doy damaa bokk ci ñooñu kon mag ñu junj mooy kan kon nitu yàlla fokk suñ borom teg mu ne suñ borom yëkkati nattu boo xam ne dafa métti te diis gan jëme ko ci jaam yi ma xool jaam yi ma ñawante leen yërëm leen ci nattu bi ma ñaan sama borom mu teggil jaam yi nattu bi tegu ci sama jëmm ji suñ borom nangul ma nattu boobu te nattu boobu duma daal mukk ndaara damaa génn Tuubaa moo tax ma génn waaye alhamdulilahi rabbil alamin nattu bi jeex na keroog altine kon jàpp naa ne maa ngi yéen ñooy bokk tabaski su ko yàlla dogalee waaye su ma ñëwee da ngeen xam ne am indi naa sëriñ daal di tàllal ñu mu ñaanal ñu génn bi ñu génnee ma dawal sama bët ci tefas gi fekk duus yi di dóor dóor bu métti ma xool ci sama wet seen ay tubaab ci tefes gi maanaam ñi ma àndaloon am na ci loolu de kenn ñi ma koo wax waaye nuroo na de kon li ma bëggoon a leer foofu mooy sëriñ tubaab mu summeeku na ci sëriñ seex muy jëmm joo xam ne bépp melokaan booy nawee nitu yàlla sëriñ seex làq na la ci gën ca jullite ga ca lislaam ja ca gëm yàlla ga ca dëddoom ga ca wàkkilu ci yàlla ak bëgg lu baax di def lu neex yàlla te musta def lu naqari yàlla di jëmm joo xam ne muñ nga kawe na njort bokk na ci rek ak dëddoom gi ma lay gi ma bëgg a leeral fii ñu toog tey keroog biñ ko fondation ba sëkk ko man mii lañ ne nañu fexe ba jokkoog sëriñ bi xamal ko ne ko sëkk bi noppi na mu ñëw ñaanal mbooloo mi fee ca guy gee ci daara sëñ xaadim ji fi lañ teg pliant bi man mi def naa ne maa ko fa teg mu ñëw toog ñu toog ci wetam mu jàkkaarloog bâtiment bi waaye ñun yëf yi na fi nun xam nga ne ñaari bâtiment yi ku ko xool xam ne rëy na waaye def na ah lii de àddina rekk la lii de àddina rekk la lii de du dara dafay jeex du dara de man sëriñ Cheikh de lépp looy xool ci ab sëriñ soo ko xoolee sama jëmm da nga ko fekk ba mu mat sëkk sëkk sëkk waaye lépp lu ma yëngu ci àddina maslaha rekk moo ma ci yóbbu waaye dara ñu rumu ci kon loolu firnde la ci ne sëriñ bi moom jënd jëmmala joo xam ne suñ borom moo ñu ko indiloon a ah, ña ngi ñaan suuf oyof ci kawam lépp lu doon jëf suñu borom ful ko aw yiw te tasaare ko ak mboolem ñam fekk ak ñu ko fekk di ñaanal ki nga xam ne moo ko fi wuutu dana jafe wuutu lool muy sëriñ moodu mbakke di xalifaam suñ borom dëgëral ko guddal aw fanam wéral ko ba naal yi nga xam ne moom lu waajuróom wi naaloon mu yeggale ko ba naal yooyu boppam te ñu ànd kook moom ak mboolum njëboot sëriñ di Faty Khary bi di ñaan moom it yan bi woyof lool ci moom bi xurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ña ngi sant bu baax di gërëm bu baax di leen balu xaq lépp lu ci jub nañ ko sante yàlla waaye lu ci dëngit ñoo ngi koy jéggalu te xam ne matuñu sax seere ci sëriñ Seex ndax cofeel gi amoon suñu diggante wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf